salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi ñu ngi lay siyaar bu baax baax di la ndokkeel di la ñaan suñu borom itam defal la tawféex gën la fee yàggal ci kanamu mbooloo mi gën laa dolli kàttan ak wér ba li nga yéene ci liggéey sëriñ bi lépp nga mën koo matale ñu ànd ko ak yow jotaay tay bi nag xam naa du yàgg ndax mbooloo mi ñoom lañu àndaloon di liggéey ci koor gi muy wenn waar ci liggéeyu daayira bi yàlla dogal nag tey jii lañ ko doon seetli di ko jeexal moo taxoon ñu daje nii ngir nga ñaanal leen ñu boroom defal leen tawféex defal leen barke gën leen a yokk saayir ak baatin ba kenn ku ne li muy yéene ak aajo bu mu mën a am ak bëgg-bëgg bu mu mën a am suñu borom sottal ko àggale ko ah dañuy wax ne dañuy wax ne sëñ mundum bi daana ko wax ñu wàcc ci waar wi am ci jaajëf ak ngërëmul sëñ bi te xaar yeneen waar kon xam naa dama lay jox kàddu gi ñaanal mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulilahi rabbil alamin ngi sant yàlla bu baax di ji ci bi sallallahu alayhi wa di sant Cheikhul Xadim mu nu boole ak yéen di wax ni yéen ndaw yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa daf leen tànn ngir ngir ngeen liggéeyal ko bu leen jàpp ne yéen fi indi seen bopp ci kër ngeen ci kër ngeen bàyyi ko ay mbooloo ngeen fa bàyyi sëriñ bi kër gu ne mu dugg fa seet kam ci soxla mu ne ko coq indi ko daje daje la ngeen di ko liggéeyal kon tànnee fi sëriñ bi ngeen yoo xam ne moo leen tànn ngeen ngeen liggéeyal ko te sëriñ bi nag comme du la fay ku nekk du la liggéeyloo kon ñëpp maa si leen wax ci alhamdulilahi rabbil alamin ndax ku am loo xam ne xëy na say baay amu ko say maam amu ko yàlla ko yàlla too feexal boo liggéey ba nga cee fas ndimbalu yërmande tey ak ëllëg waaye fasal ko ci tam maam yi nga xam ni ñoo la mel meññ ba nga mën a liggéey Sëriñ Tuubaa ndax sëñ liggéey Sëriñ Tuubaa ku ne xaj na ci liggéey Sëriñ Tuubaa ku na ci te ko mas gontal ku ne maa nga xëyal ko fay na loo xam ne àddina jëpp teg nañ ci bët koo fa gis mu foo fa gis barke rek suñ tuwaa ko def foo gis mu def barke itam kooku da koo xeel mbaa mu gontal ko yéen ngeen di ay ndaw yoo xam ne ñu waroon xëy ca la leen ngeen xëy na mën ngeen xëy te di nelaw wala mën xëy di jox football ba mën ngeen xëy ci taxawaalu ba ba ngeen xëy ci ambeab mbaa leneen am ci sax ñoo xam dañoo amoon ay liggéey waaye ba koor jotee dañ ko arrêté ngir liggéey bi nga xam ne Sëñ Tuubaa jaral leen loolu na nga xam ne am ngeen feex ndax Sëñ Tuubaa am ko pay la kon nun de dañu ne ñee lool ndax ba ñu toll yéen nekkul woon ci loolu xen yi ci leneen ñooñu ca jàng ak nangam ak nangam nangam te liggéey Sëñ Tuubaa moom xamul lu ko gën la si ma sama jub daan wax na fu ne wàcc naa fa ngir sàkku barke di jàng waaye su ma tee doon xam ne Sëñ Tuubaa dara dama ci ci fekk waaw kon nun ba ñu toll yéen xel yi ngi woon ci leneen yéen nag fi ngeen di toll ci doon ndawal tuuti leen sëñ bi xoñ ci liggéey loo leen suñ mag ña nga xam ne dañoo yoroon da yor seeni yor seeni baay dafa waxoon ne ndaw ñooñu yéen li mu def ci yéen def ma ko ci seen i waajur ndax seen waajur xëy na jaar nañ sax yéen a xam ne lu dul man ndaw lu xamul lu may sëriñ bi nag war maa laa ci xam ci njaari mas naa am ci njaari ñu mujj yëngatu rek sëm ne biir am kuy wax naan fii de dañ fi daan defaroo waaye léegi dañ fi yàqoo sëñ bi tànk ci jër fëgg na ana ko wax loolu waaye ki ko ko ñëwoon ñëwatu ko wax mun ne fii kenn dafa yàqoo waa li nga wax de fii de kenn du fi yàqoo daan wax ndaw yi yéen de yéen def naa ci yéen lu ma deful ci seeni seen seen i waajur ndax ndaw lu xamul lu dul man li ma doon seet ci mag ñi mu tax maa ci ndaw ñi rek laa ko fekk muy xol boo xamul lu dul man xol yi nga xam ne xamul lu may Serigne tubaa nag te yàlla xëy ci liggéey Serigne Touba ñooñu moom sant yàlla lañu war a def te doolu la takk seen loxo sax te doo dégg góorlu xam ne am nañ loo xam ne seen ku arrondissement amut amutoon nag war ngaa sant yàlla kon daal liggéey baa ngoog mi ngi seen loxo liggéey bépp bu nekk ci loxo ay ndaw nag lu am lu am yaakaar lay doon kon liggéey baa ngoog mi ngi seen loxo sommi ngeen ko ba àddina bépp yëg ni def ngeen lu kenn mësta def ndax li li li nit di gis fi doo gis fa ne mukk ci àddina te bu ñu mën ndaw yi ko def yaakaar naa dana gën a waaru maanaam nizam bi ni mu amee solo technique bi ci nekk da ngay jàpp ni ñii dañ a formé te doo dégg bàyyil doo dégg jàppal ku ne yaa ngi ci war rek loolu mooy yëm moom borom xam yi fii ñëw ak ñu nit ñi fi ñëw waaw nit ñi fi ñëw moom ak borom xam yi loolu moo doon yéen organisation bi ni mu demee te dégg coow ku ne yaa ngi war di ko def di ko def pësé boo xam ne yàlla rek la ko seereel loolu lu ko ëpp solo amul kon daal noonu li ngi sant yàlla di leen ko santale di sàkkatu ngeen santal ko seen bopp ñaan sëriñ di wax sëriñ bi ne ko kon noo ngi nii mënuñu nu amunu fasal nu ndax nu mën noo fas te xamun du baax ak lu ban bay fas kon sëñ bi fasal nu la gëj ci lu ñu war a fay te la gëj ci la fay ku jëf kon wax jàngook du bari xaw bi dafa sedd dafa fees ndax euh, ndawe gi ma ci gis laa laa ci xamutoon ndaw yu ndaw yi ma ci gis laa ci xamutoon ndekkee liggéey bii ndaw yu toll yi nekk na ci moo daw yaram lool moo daw yaram lool ndaw loo xam ne dafa jóg rek ngir liggéeyal sëñ bi ndax dafa gimmi rek ngir liggéeyal sëñ bi kooku sa kooku jooj ta feex fu mën a am waaw kon alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ñu yàlla ma yéen ñëpp yëpp ngi yàlla sàmm yaa ngi teg saatal mu sàqima yàlla ne defal xéwal gu xéwal gu rëy ba ku ne la nga ba dañuy def fii li ñu bari bari kenn ci ku ne mën ko def mën ko def mën ko fere lépp yow mën yàlla yàlla na ko def te liggéey bi àttan na ko te suñ toom ñu koy seqal lu jeexal dara te as gor la koo fay mu liggéey la te am na ko daal wax ne ñi mu bor damaa am dama am pay néew mu bor dama am pay te daana wax ne jamono ñëw joo xam ne booba yàgg na ci njaareem suma kër gii booba lakk doo doon ma war kër ga su demee ba def sàkkati weñ sama xas yi sama xas yi ñu koy dégg ci jaww ji su am na def mbooloo mbooloo mi ñettu xaaj benn bi ci sama loxo benn bi ci loxo yi tubaab bi benn bi nag jàppale nekk ci dara te nekkuñ ci dara kon alhamdulilah ñoom bi nekkee ci loxo yi bi ñu ñu waaw kon alhamdulilah nun bi nekk ci loxoy sëriñ ku ko ku nekk ci loxoy sëriñ moom sax war naa dal te ñii moom ku ne xam ñu ngi ci loxoy sëriñ bi waaw kon ñu ngi sant bu baax te gërëm te ñaan kon daal yaa am yaa xam la nga yéene yaa xam la nga fas yaa xam la nga bëgg donc yàlla miy def te am kattantu jeexal dara yàlla ko defal ci barkab loolu nag mooy kàddu ñu ngi koy jégalu nag noonu nag suñu sant moom suñu sant bopp amul njariñ waaye sant nañ leen lool gërëm nañ leen lool ñu ngi leen tam ñaanal itam dara suñu ñaan amul barke waaw su suñ bopp daal su su su suñ suñ nu ni bopp nekk ku nekk ci seen biir ngeen bool ñu ci seen biir ñu ànd ak yéen liggéey bi donte ñu defuñu dara waaye ñu ànd ak yéen xalaat yi ci biir loolu ñu ngi ciy sukkandiku di ñaan su suñu borom fajal aju ñëpp su moom faj seen aju yéen ñëpp loolu ngeen di mag di magi lislaam di magi Serigne Touba te am nañ ci yaakaar lool ndax ku ni ndax ndax ku ni junne tam la liggéey sëñ moom am mun ñoo def lu may am ci am ci yow yaakaar bu seetaan yàlla bu leen seetaan ne fëkk yàlla bu dee seetaan na fëkk yàlla sëñ bi téel boppam laqaleen boppam ba fu àq fa yàq yëgul jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullahi wa